maa ngi remercier ci question bi si wax ni euh, en vérité comme l'a dit Moussa Sow euh, projet yi duñ koy euh, présenter. Mm-hmm. y a une envie. waaw <laughs> mais en réalité c'est l'applicabilité l'applicabilité justement. Mm-hmm. l'application de ce programme là de ce projet qui qui problématique. Mm-hmm. te ci waxtaan bi dama ci dégg ñoom ñaar mën naa ne sax dañoo. déggoon nañ ci wax di xamuñu ko mhm. parce que mon frère dafa wax léegi euh, ne euh, le problème du Sénégal ce sont les valeurs indi lu jub jubal jubanti ma kay may rappeler foofu ni loolu ce n'est pas lié en réalité à des formations politiques mais loolu c'est la pathologie même du pays donc bu ñu yaakaar ni euh, jub jubal jubanti mënuñu ko demain appliquer tey ñi yor nguur gi parce loolu c'est intrinsèquement lié au Sénégalais parce que concrètement valeur sociétale yi nga xam ni moo war a nekk socle société bi yooyu valeur ñoo disparaître te valeur yooyu yooyu war a revenir te loolu mooy en réalité l'échec de des politiques publiques qui se sont succédé des régimes parce que on n'a pas suffisamment bâti de vrais citoyens avec des valeurs boo xoolee tey école publique dafa disparaître les parents sont sortis la vie coûte cher on n'a pas et même les différents régimes qui se sont succédés concentré wuñu ci euh, euh, ci l'humain en en particulier bon pour revenir ci projet bi Mamadou Awa mhm. moi vu des chiffres qui sont qui sont très ambitieux gis naa ni euh, nous voulons par exemple un projet à long terme euh, multiplier par trois le PIB par habitant euh, le Sénégal ci top 100 à indice de développement humain ñu ngi actuellement 169e place compter sur la construction d'autoroutes ajouter 1500 kilomètres d'autoroute sur le réseau déjà existant. ci loolu le président Macky Sall a beaucoup fait l'autoroute. Oui, les autoroutes plutôt oui. mais xam nga tey ñoom bu ñu nee ajouter 1500 kilomètres d'autoroute. Mhm. mooy le régime en place sur le réseau réseau déjà existant de 350 kilomètres. le gap est énorme lu ñu war a def bëri 300 à 1500 c'est énorme 2000 kilomètres de de voies ferrées les territoires comme l'a dit Djibril dogguma la euh, ambition yi mën na yaatu mais avec volonté mais aussi ak jub bi dinañ ci mën arrivé parce que beaucoup de fonds ont été perdus euh, à cause de malversation wala à cause de non suivi yu yu noonu mais appliquer ko dina. ça c'est vrai bi. Mhm. ce au mhm. PDS c'est c'est mhm, n'a qui ma wax ni école amatul. wax ni la ci li ngay wax ni ku mel ne Fadilou Keita par exemple il a licencié DG ou CDC yàggul parce que am na lu mu koy reproché ay malversations yoo xam ne xëy na tàmbali war na ko. pour vous dire que ne c'est c'est maanaam le Sénégalais bu dëngee moom dëng na rek. ak fu mu mënti far. donc loolu dafay wane ni sax en réalité tout ça c'est bien mais que concrètement le chantier mmh. le plus vaste c'est refaire le sénégalais mm-hmm. et qui passe par en réalité prioriser euh, li nga les secteurs yoo santé mooy éducation mm-hmm. et permettre en réalité aux parents de pouvoir Euh, bien s'occuper de leur progéniture. Mm-hmm. donc loolu potentiel humain l'homme c'est extrêmement important parce que loolu tant que réglé wuñ ko. dañuy wax

il jubile sa famille jubile. on a on a vu ça. or les tâches sont énormes. Mhm. da nga war a da nga war a ñaan yàlla mu jàppale la en fait. Mhm. vraiment s'isoler pleurer. et savoir prier ñaan yàlla mu jàppale ko. parce que si sacrifice la. Mhm. donc il faut changer déjà cette mentalité. fii pouvoir jouissance lañ ko jàppee en fait. voilà qui fait croire que donc c'est pour cela que je disais tout de suite que le jub jubal jubal. c'est un bon slogan. mais comment l'appliquer? ce n'est que par ce n'est pas que par la sanction concrètement. c'est aussi par parce que président Macky Sall lu mu doon jaay aussi. gestion euh, sobre et vertueuse voilà mais di mais dëgg la du dëgg. régime bi bees ñu ngi dégg ay quelques scandales. Mm. dëgg la du dëgg man mënu ma wax ni dëgg la. Mm. mënu ma wax ni du dëgg. mais mais tout ça ça montre que ni en réalité. Euh, c'est la conception même du pouvoir qui est à revoir mm. concrètement. alors pour revenir ci euh, projet bi moi je suis j'ai été très heureux de voir euh, le projet parce que nous avons Mm-hmm. avec euh, le président Macky Sall avec le président Bassirou Diomaye venu ak épaulé par Ousmane Sonko ñu ñu ñu promettre beaucoup de choses aux Sénégalais bon promesse yooyu noonu yi bëre yooyu ak ni ñu doon critiquer le régime à l'époque moo tax sax ñi euh, ñi foog ni doxalin bu ñuy doxal doxee doxa ni ñuy doxalee tey ce n'est pas conforme en réalité à la normale or ça peut être conforme mmh, à la mmh, normale mmh. mmh. mais, mais le souci mooy dañ leen di confronter à ce qu'ils disaient mmh. quand ils étaient opposants or c'est techniquement euh, mën naa ne sax est-ce que xamoon nañ lu ñuy wax parce que ils avaient pas en main en réalité tous les éléments donc ça ça fait penser et ça fait dire que nañu bàyyi di jël les opposants di leen euh, apprécier selon le dire pendant qu'ils sont opposants mhm. même si man dama jàpp ni quand tu es opposant tu dois avoir en vérité la posture d'un homme d'État li nga xamante oui nga xam ne li ngay wax yépp boo nekkee ci boo ñëwee ci nguur gi en fait tu évolues tu évalues mmh. mais rigoureusement euh, ce qui se fait et tu ne tu ne tu ne pas simplement pour le faire et mhm. pour capter effectivement un benn électorat